internet na yu impro ñu ngi fii ci Géejawaay tey seet si eh, ki nga xam ne mooy monument bi fair playul monument bi nga xam ne. monument bu fair playul de. fair play ah, dama lay bul ma wax fair play pourquoi. fair pourquoi fair play boo lu du ma fair play. tax yow nangu yow nanguwoo defet kulaat nangu ma defet defet booba léegi yaa ngi booba léegi yaa ngi attaqué nit ñi di yàq seen der naan bu jaar yoon dama koy nangu bu dafa jaar yoon dama ko nangu def lan mooy defet yaa ni woon ndam noo ko amee baax na waaw du waaw defet la ci lan d'accord naa defet la amul problème d'accord naa defet la waaye defet ak defetam defet bi comme sama euh, victoire Gambie bi mook ñoom ñaar ñoo yem yow ñu daal ci ci gannaaw saal. yow Madoune ju xool Madoune xoolal Madoune waxal wax bu rafet waaye yow yow xoolal dimbali wees na saytaane nga xam ne da ngaa saytaane Madoune saytaane la. saytaane la maa ko wax. mun nga ko mujjee dimbali ma. saytaane la yow yéen ñaara yem rek at buur yéen ñëpp yem ay saytaane ngeen. liiru saytaane ngeen maa ko wax. liiru làmb nit day sportif. liiru jaan d'abord li ma njëkk a constaté ci làmb ji bi ma ñëwee tàllal la micro liiru jaan tàmbale ngaa jooy ça veut assurance nekkul woon ci yow deuxièmement dégg naa la ngay attaqué Fadam. faram li mu wax mooy mooy Balla Gaye bi ma gis xàmmeetuma li may wax sénégalais mooy Balla Gaye de mën naa gis ci làmb gisatuma ko Balla Gaye ko Balla Gaye moom ma xamoon gisatuma ko ci làmb Balla Gaye jeexal làmb ci une minute ko ci làmb Balla Gaye de ca sañ-sañ ba Balla Gaye de ca ñeme xeex ba gis gisatuma ko ci làmb Balla Gaye de tey nekkul à l'aise ci làmb ji mën na ñoo ne sax Balla Gaye de ndax ñeme na Bombardier cent pour cent gisatuñ loolu Balla Gaye de xamewuñ la lii ci wàllu làmb xamewuñ la lii c'est amateur yi xamewuñ la lii ci wàllu lamb amateur da nga leen daan yeewu ci ay minutes da leen daan yeewu ci ay secondes ku daan Yékini daan Modou Lo ñaari yoon war ngaa mën a bëri lu nekk moom des nii Balla Gaye lamb xaaral la ci lii Bombardier lamb da nga ciy amateur ba léegi. Balla Gaye ba daan ba daan jox ay. waxul dëgg c'est pas vrai xamu ci dara waxul dëgg Fadam tappat la. bëri na fa ñaari yoon dimbali ma. ñaari combat la bëri ñu daan ko duma ko daan ko mu bàyyi bëri. mais loolu Fadam rek ñu ko wax bëri nan de. man nag moom moom moom mi nga xam mooy sama rak moom laay attaqué. est-ce que contact na. daf ne est-ce que contact na. waxul Saliou Mbacké Madoune ku wax Balla Gaye comptable waxoo dëgg ku wax Balla Gaye entraîneur waxoo dëgg Balla Gaye trois mois mu tëj ko këram dem Paris di entraîner daj ay coono ñëw Sénégal jaar këram def fi benn jour dem Mamel def la groupement ba léegi du contact may accepté comme entraîneur bi sept jours ma taxaw. ñan la Balla gay doon doon contact woon. lan la ñan la Balla Gaye ah mbëri. xale yaa nga fa. Euh, saa kees. doon na ba. ah sa non may ma tuuti ma euh, ñoom fii sa bàllaa nga foon. Ah, ah ñoom njaga doole. ah ñoom baabooy. ah at yéen booy ñoom Youssou yéen booy. waaw. ci ñi ma limal. yow gis nga njaga doole ni mu toll. gis nga saa kees ni mu toll barki Serigne Saliou Mbacke billaahi wallaahi xam nga am na yoo xam du ma ko wax am na ñoo xam du ma tudd seen tur sax. am na yenn mbër yoo xam ne ñu ko doon jàppale du ma tudd seen tur waaye Balla Gaye li ko wàcc combat bi yëpp def na ko préparé na combat bi ni mu ko war a préparé yoonu kenn nekku ci fekkewul fa Balla Gaye la entraîné fekkewul fa Balla Gaye la groupement ku nekk yëkkat sa làmmeñ di ratatatatat di wax ndaw laa bëgg ñu bàyyi Balla Gaye je arrête à Balla Gaye 2 est-ce que lii ngay wax ci Balla Gaye est-ce que dina ko servir leçon damaa yaakaar ni mbër boo ànd moom di mag déedéet defal naa mbër boo ànd moom di magu géejawaay di monument géejawaay nit su jógee ci lu mel nii da nga koo war a d'abord santloo yàlla ba pare nekk sportif ba pare am na ñetti combat yuy ñëw ci ginnaawam est-ce que wax jàkkaarloog jàkkaarloog moom wax ko wax ko dëgg may ma tuuti man awma lu may ragal a wax Balla Gaye suma rakk la c'est mon frère li ko war xam na ko doful jën a jàpp ko combat prépa Balla Gaye nan lay jëlee quatre avance toog ñu taxaw naan Balla Gaye entraîné wul am ñu taxaw naan Balla Gaye kontaagul ñu ko wax yi bokkuñu dëgg. xamul barki Serigne Salim Mbakam Fadam moom wax na ko. wax na ko. déedéet yow non déedéet gis nga Fadam. Fadam sama reporter la. Fadam li mu wax dinaa la ko tegalaat pour vaar ñëw. nee na Balla Gaye bi ma daan gis Balla Gaye bi daan joxe seconde yi. li may wax sénégalais mooy Balla Gaye de ma daan gis ci làmb gis ko. Balla Gaye moom ma xamoon gisatuma ko ci làmb Balla Gaye mi daan jeexal làmb ci une minute ko ci làmb Balla Gaye day ca sañ-sañ ba Balla Gaye ca ñeme xeex ba gisatuma ko ci làmb Balla Gaye day tey nekkul à ci làmb ji mën nañu wax ne sax Balla Gaye day ndax ñeme na Bombardier cent pour cent gisatuñ loolu Balla Gaye de xamewuñ la lii ci wàllu làmb xamewuñ la lii c'est amateur yi xamewuñ la lii ci wàllu làmb amateur yi da leen daan yeewu ci ay minutes da nga leen daan yeewu ci ay secondes ku daan Yékini daan Modou Lo ñaari yoon war ngaa mën a bëri lu nekk moom des nii Balla Gaye làmb xaaral la ci lii Bombardier lamb da nga ciy amateur ba léegi. Balla Gaye bi daan joxe seconde yi ak minute yi. Balla Gaye bi nga xam ne da ko doon gis muscle yi sayaat sadd. ah nga gis siddit yi. doole jëm joon gis. ak man-man bi ak pas-pas ba. nee na lool ci Balla Gaye. waxul dëkk Balla Gaye bi naan wax damay ñëw léegi bu naan ñëwal. waaw léegi Balla Balla Gaye ci ah, combat naan Bombardier ñëw. kan moo attaqué Bombardier. Balla voilà surtout moo attaqué de Bombardier attaqué wul. Bamba Gaye ba Bombardier arbitre doon soufflé moo attaqué. kon Balla Gaye di soufflé moo attaqué. Balla Gaye moo ko attaqué dem jël mu mel ni guy moom taxaw na sëng sëngaaral Bombardier deful dara. ah bëri eh, ah, problème bi am. jàngat la ñuy def d'abord. Ah, critiqué wuñ defuñ jàngat la ñuy def. liiru est-ce que. seen cummikaay d'abord fa laay commencé est-ce que cummikaay bi bariwul woon nit est-ce que cummikaay bi amul problème est-ce que amu leen woon ay rax. am na am na am na ay rax am na ko cummikaay am na ay rax am na ñoo xam daaw leen fa gis nga gis leen fa ku nekk di wane sa bopp ku nekk di wane sa bopp man mii sax metti na ma. parce que am na ñu ma man damay toog ba ci damay xool damay jooy. loolu man jooy. wa jooy naa. waaw léegi xam li ma doon jooy. dama yërëm sama rakk ji gis coono yim daj ci làmb ji na ci cummikaay la mel façon nit bu nekk gis ko. ah xulóo bi ci nekk. voilà. mais manque d' organisation boobu kañ la daan am cimikaay Balla Gaye. nga ne manque organisation boobu kañ la daan am cimikaay Balla Gaye fecckat kenn ku ne ñu gis la ñii di sinap ci guddi gi ñor gis nañ ci ay nit yoo xam ne bi ñu jógee ci combat bi dañoo dem baal ji. sa diggante yàlla. ñoo xam ne ci guddi gi demee kon ñoo kon defet bi naqariwu leen. kon defet bi naqariwu leen ñoom kon dañoo wone seen bopp moo tax ñu ñëw fa waaye ku ko def yàlla na sama àq daal yàlla na ko gis. est-ce que waaye am na ñoo xam ne dañoo ànd ak Balla pour bëgg tur. Ah, ah non. lu tax nga jooy avant combat. non li tax ma jooy dama déggoo li ma dama ne la dama gis Balla Gaye coono yi mu daj ci làmb ji fatiguement bi mu ci daj ñëw ba la jour ji mbooloo mépp ñëw màbbu. ñëw ci cëmmekaay li looloo ma metti looloo ma damay xool jooy ba pare dama ko yërëm. mais loolu foto la. dama ko yërëm. foto la lool fët la. parce que loolu est ce que tàmbaliwul ci Aziz Ndiaye bi nga xam ne mooy papaay Balla Gaye bu organisé wu. waaye loolu dootul am man ba ñu ma ci tëdd kaso vingt ans. lan barki Serigne Fallou Mbacke ba ñu ma ci tëdd kaso vingt ans après. xanaa da ngay wallaahi taala ba ñu ma ci tëdd kaso vingt ans. billaahi ba ñu ma ci tëdd vingt ans. ci bëgg ci bëggaay ba. nar a yàqal. ma door la bal nga dee ma dem tënd kaso vingt ans man bàyyi ko man ba nuñ juuf. ci bikaay bal barki Sëriñ ko nar a yàq ma dóor la bal ma dem tënd kaso vingt man ba ñu ci loolu man sama rakk la sama rakk la damaa gis coono yim daj ci combat bi. billahi wallahi taala damaa gis coono yim daj ci combat bi ñu bëgg ko yàqal. daa mel ni grand théâtre la nekk rok lu léegi folklore bi bari trop waaye dootu Balla Gaye tàmm na ambiance bëggal ay santam may ma tuuti ma dul tàmm na ambiance bëggal ay fansam barki Serigne Saliou mbakke tàmm na ambiance bëggal ay fansam ma dun lool la xamal nit ñi loolu lay defal nit ñi kon nag su affaire bi demee nii kon nga am comprendre nga ku nekk nag day yëkkat sa làmmiñ di wax te ma dun sot bi dafa bari woon ma dun ñu doon sot Balla Gaye dafa bari woon ñu daal Balla Gaye suñu victoire ñun doon ko téye woon ñàkkee tuuti bi ba ci biir géew bi lan ko ñàkk lan ma leen ko ñàkkaloo dana doon ñu sot doon moo leen sot barina am na ci bàyyi sosolaat ak yàq am na ci mbëri yu doon bëree ba bàyyi bëri dañu doon sot fu mbëri dëkk kan bëree fu dëkk may la dinaa wax am na am promoteur yoo xam sax dañu doon sot ne man man dafa am benn wax boo wax léegi da nga ne am na mbër yoo xam ne dem nañ ba bàyyi bëri euh, yëkki ni bëri na fi bàyyi bëri moom ngay waxal baaboo yi bàyyi bëri. déedéet déedéet déedéet tay Tyson bàyyi na bëri. mbay Diouf ngay wax wala kan. te yéen foog naa seen diggante gi Yékini moo rataxul noonu Yékini ngay waxal. ku ni yéen jàmm daal yàlla boo ménageur waaw ménageur yi doon si biir ñan la. am na am na ménageur yoo xam dañ doon si dañoo kontaan ni ñu joxe bomba ma promoteur xam na seen bopp dinaa wax de. dinaa wax de. Eh, promoteur yi yu ndaw. dinaa wax de. nga ne barki Serigne Bamba dinaa wax. kon waxaguma de. <laughs> billaahi waxaguma Madoune Diouf. kañ ngay wax kañ ngay wax. xam nga dañoo jub ay bis. dañoo jub yeneen bis. moo tax waxuma. dañoo jub yeneen bis. fan si Balla gay 2 yi laay waxal. mais dafa mel ne ba dafa mel ne Bombardier daa tas sa yaakaar. bu baax tas na sama yaakaar moom. wax dëgg yàlla tas na sama yaay. bari doole. amul doole gàllaaj rek la yaa. bari supporter am man suba tekki ñaari kaar ak genn wàll la indi stade. stade ñun su ay noble lan suñu ay naanaan lan stade bi ñoo ko duy ba mu fees dell lu billet seer seer seer ñu jël ko su supporter seen ba non violence. Bombardier mu dem bay fecc ndax xel mu daal. noppal na ko kenn xamul muy fecc. tey jii bu vaar ñëwaatee. kaddu yi nga doon wax Bombardier wax ju wax ju ñaaw ji wax ju bari ji waaw loolu bi bi bi biñ ne biñ yëkkatee loxo loxo Bombardier lan nga yëg su ma doon jigéen bu ëmb damay wasin ah, xanaa day fekk nga su ma amul neuf mois sax damay wasin mais wasin itam amoon neuf mois su ma doon jigéen damay wasin ah, day fekk nga am neuf mois amul neuf mois ndax boobu su ma amul neuf mois sax damay wasin barke su ma yaakaar su ma yaakaar dama doon jubilé euh, après combat bi. da ngaa a feetu nga tent boobu ñu bari naan moo jógul Balla Gaye tent bi. moo xoolal dimbali ñu yàgg nañoo tent Balla Gaye yàgg naa tent. yow la moo tent ma tent sama rakk la moo tent ma tent Balla Gaye tent ma tent sama rakk la c'est soo tentee ma tent sama rakk la. parce que un liir bu tent bariwul lu koy gis. kan. tentu ma. non boobu da nga doon jaay affaire ak bi combat. man du ma américain Sénégal. et puis gis beneen liiru jaan mu nekk mu bu saa ñu ngi bu butéel. làmb ji dama ko yenoo aw sérieux dama ko yen woon aw sérieux làmb ji dama ko jëlee musuma kaa jëlee combat Balla Gaye barki Serigne Fallou Mbacké làmb ji ko jëlee musuma koo jëlee combat Balla Gaye ndax wax ji dafa bëri ba mu jëlee am na wax na ma ko waaw li ko yàq yàqoo kenn ah, li nga yàq sport la su jeexee jeex na su jeexee jeex na man nooy xoolaatee bo nooy xoolee Bombardier moom a jàpp lu ma koy xoolee ci lan li mu sa yaakaar ak li ko doon yàq sama yaakaar kay waaye nag baax na am problème te xam nga ci jaaxal liiru bu ñu taxawee tuuti ci mi kaay bu jaxasoo pëcc ko màgg organisation kenn ku ne daw feeñal boppam ci war ci Balla Gaye voilà ba pare waaw gis nga su Balla Gaye jaaree nii ah, ñu bëri daal di ñëw ñooxu ko ah bëgg a gis Balla Gaye xam nga bëgg koo jege pour caméra ay jël la Madoune Diouf est-ce gis nga ma benn benn benn yoon Madoune bu ma taxee bu ma ànd ak Balla Gaye voilà ko di comprendre fi tefe moo tax nga doon jooy déedéet sama xol moo neexul li ma na daw wallaay ndeysaan liiru Balla Gaye dee di sa doomu yaay nga ëmb ko indi ko ci bés bu nekk mu am ci ndam. liiru yàlla suturaal rek yàlla yàlla suturaal maa ngi leen di seen guy te mu sonn ci cat cat yàlla na yàlla suturaal te mu sonn ci cat. liiru dañoo gis xam ne da bëgg Balla Gaye numéro 2. sama rakk nga indi ko ci bés mel nii. moo ko liggéey moo ko liggéey lépp moom la yàlla ko yàlla suturaal maa ngi ko am seen guy yàlla mu sonn ci cat cat cat. jërëjëf su ma naqari bu neexuma xam naa suma bopp bëgguma dal si kaw kenn wala may histoire ñu ne après man la loolu laa doon sóor. a isolé wu toog fee di jox. dan ma am na ñu ma waxoon ne bu leen coow. bu leen coow lan ma waxoon léegi nag man. voilà man am na ñu ma waxoon bu leen coow sama jooy loolu ci la bokk. waaw ma am lu ma naqari te man su ma attaqué su ma attaqué. ñu ne maa yàq. te xam nga ni lii toog tamit damaa xër ci Balla Gaye. xam nga ñuy toog ginnaaw Balla ñu ci bari. dañuy yàqal Balla may defarul. wallaahi nañ ko am na ñoo xam ne dañ koy signé ay bëñ waaye bëgguñu ko. mais benn. benn politicien. seen làmb ji paase ngeen amoon ak moom problème. ma gis làmb ji mu koy sotti butéel. la loolu lan la. ah. gis nga ma xamal la benn affaire. gis ma xamal benn affaire. làmb ji li ci laax su ma bari te di beneen yoon a ngi ñëw. beneen yoon mi ngi ñëw ku nekk doon wane sa bopp rek. ku nekk doon wane sa bopp léegi lii am na baax na. xoolaat boppam xoolaat entourage am est-ce que moom. baax est-ce que est que làmb làmb benn baaxaay bi mën na koo def. li ci kanam xam na li koy xaar bala Gaye xam na li koy xaar Balla Gaye xam na koy xaar lii def ñuy yee ci bari bëri njàngat nañ ci ku ci nekk ñu bëri dañ doon jaay seen bopp dañ doon wane seen bopp di jaay seen bopp. maa gën a jege Balla Gaye kenn gënuma cee jege Balla Gaye waaye soo gisee dama xam nu ma def am na lu ko waral soo gisee ma isalu di jooy rek am na lu ko waral sama xol neexul damaa gis lu ma neexul te bëgguma dem daaka kenn ñu ne maa yàq bis bi loolu laa doon mbañ mais taxawaayu Lirou taxawaayu Lirou Diane su Balla amaatee combat parce que déborde bi metti na la. déggoo ma la wax bañu ma ci góor. lan pistolet tuy nga këpp tëdd vingt ans kaso bañu ma ko ci. yow yaa tëdd waaye ñoom. waaw man laa wax maay tëdd bañu ma ci tëdd. beneen mbir tamit dégg naa ko fore naa ci weewu bëy ne CNG mu ngi ci ay tànkam moom mi bokkoo écurie ak Balla Gaye yaa ngi écurie waalo loolu it CNG man dégg naa ñu ngi réunion ndax yow xaj na ci sax nan laa def maay mënu maa géej wooyu maay magu xale yi maay ma benn la écurie waalo école bi lépp benn la écurie waalo école bi lépp benn la voilà maa nan ma réunion nan ma réunion. ñoom dañoo réunion bañu nan ma réunion. nan ma pexe bu jub est-ce que dootoo doo di nga jegeeti Balla Gaye. barki Serigne Saliou Mbacke mënuñu maa tee jege Balla Gaye 2. Hmm? Bira Sène moo ko wax. waaw ah nan ma réunion. maa ngi leen di xaar. Hmm? nan ma réunion nan ma convoqué. nan ma réunion. seen diggante ak Boy Niang fi nga ci toll. xool xaw ma dimbali ma bul ma wax waxee. est bi wax ne Balla Gaye mooy moo gën a niil ci ci ci poids lourd yi. est-ce que mayu leen ko bunt ci combat bi. loolu wax bu yàqu la Madoune. Madoune loolu wax bu yàqu la déggoo la am na ñoo xam ne yow jënd nañ seen socc yu gudd. dencoon ko fi ne neexee ñu génn socc am na ñoo xam ne tey jii may nañ tànn bi ca guddi ga. waaye nag yàlla baax na li ci kanam rawale bët. gëm nga 100 pour cent géejawaay boobu. kan 100 pour cent cent bi. ma xamal la benn affaire. du ma ne gëwuma ko. daa xaw a ragal léegi nag ay question bi daa am lu muy tontu daa ma xaw a ragal léegi. moo man léegi daa am question xam nga may ragal man wala lu may tiit man. man gis naa lu may ragal man lu may tiit man. 100 pour cent dama laaj man gis naa ma xam nga ma yow gis naa lu may ragal wala lu may tiit man. man ñoom ñëpp su may ragal déglu ma rek dama lay expliquer tey open de presse bi gis nga ñëpp gis nga leen fa. guy làmb ji gis ñu fa la dagee. waaw d'accord guy gi dafa amoon dëj woo na ma téléphone. barke Serigne Saliou Mbacke woo na ma ne ma grand dama am dëj. loolu laa jàpp ku la wax la ñëw. nax nit ñi naan jabar ji sama jarbaat sama jarbaat sama jarbaat xëy xëy takk ko. araamu sëy la moom it mu naan sama sama nijaay sama nijaay sama nijaay ah? su kee jóge naan yaay su kee jóge naan tonton su jóge naan sama jalbaat ba xëy xëy ñu ne ba pare mu naa ma dama la koy may kat barke Sëriñ Bamba Mbàkke mu naa ma dama la koy jox na ma fukki numéro yu bokkul ah <laughs> xool ma affaire yii mu yor. waaw bu changé débat bi yéen na ci làmb ji ci làmb ji la nekk dama ne nan ngeen xalaat ni ma leen ñàkkloo. non li ma la wax ci digg géew bi la ñàkk ñun suñu victoire dañ ko téye woon. kon déglu woon xanaa loxo bi ñu ko téye. non non dañ ko téye déglu ma dañ ko téye woon sot dañu doon sot. Balla Gaye ñi ko doon sot moom bari Balla Gaye ñuy bëgg mu daan te Balla Gaye àddunaa ko bëgg xëy na loolu moo neexul doomu aadama yi Balla Gaye am na ñaanu waajur ku yóbbu ne ko jàkk te buñ ko piis Balla Gaye am na ñaanu waajur ko baax la ak day def ay social ay gorom gërëm nañ ko. day jënd ordonnance waaw day jël ay. day dimbali ay nit day dimbali ay nit ci da ay nagu jàkk yi tam xarit yi. waaw Bombardier du ñu bari du bari Bombardier mais ñu bari neen Bombardier da ko daan foofu siit bu njëkk bi jël la. daanu ko. mais Gaston sax dëggal man daal paa bi man xamuma fu muy taxaw man bu ma waxee paa bi man. man man boppam dëggal na ne. chute boobu chute la. te loo gis ci te loo gis ci euh, cinquième avertissement bi ñu ko joxul parce que. bi muy génn noonu waaw. waaw bi ñu fekk foofu. kan ci. bi ko Bamba Diakore ñu dorote ba Balla Gaye gée génn ñu war ko avertir avertiroon ko. loolu du amu fa. ndax non non du sorti ñoom ñaa ñëpp a génn. ku njëkk non gis nga biiru nag dama moo njëkk a génn. dama lay këpp café man euh, làmb ji man ah, dama doon jooy. ah, ah non non loolu ngay wax ni yow amul. avertissement boobu ngay wax naan ay avertissement fan. Bombardier koor Balla Gaye ñu xeex Balla Gaye Bombardier dóor ko ñu génn saaku Balla Gaye njëkk a génn. gisuma lo man gisuma ko man làmb ji ba léegi seeraanuma ko. man euh, seeraanu ma ko moo ñibbisee sama. ndax bu ngeen amaatee combat clavier bi dana lan xamee Balla Gaye 2. mais loolu bokk ci ay déglu ma bëggal ay fansam lan xamee Balla Gaye 2. comprendre nga ah Balla la Balla Gaye daf leen am lu mu leen tàmmal bu ndam lu ne indi na ko fi ndam lu ne indi na ko Balla Gaye indi na leen ko. comprendre lii nag du tax du tax kenn décourage ku bëgg Balla Gaye lii du tax nga def. déggoo li ma lax dégg goon laax ba ñu ma ci. mën nañ bàyyi ba ci kanam ba ñu ma ci tëdd kaso vingt ans man maa la wax lii man. barki Serigne Saliou Mbacke ba ñu ma ci xo dawul ma non. Boucher yaa ñaa liiru avertir na leen nee na bañu ci dara avertir na Boucher avertir na ñaa. dama ne la. làmb ji beneen yoon affaire dina changé loolu laa wax. ba ñu ma ci tëdd kaso dina changé. su changé su ma la xam nga déggu naa nee naa la keroog bu histoire ñu ne. maa yàq te boobu man am na ñoo xam dañ ne ma bu leen histoire te làmb ja Lamine d'accord Madoune Diouf Madoune Diouf d'accord d'accord Madoune Diouf waaye bugguma yàq bugguma histoire xam nga sama jikko man man su ma tàngee su ma histoire du baax loolu laa doon sóor. lii di xeeñ roon nga ko. man ak liiru bi ma xamoon liiru may wax ak moom interview liiru commencé ji jooy man ma ne xàmmeetuma liiru ma gis nit ñi ñi ngi waxtaan fii ñi ngi def li mais liiroo ngi ne tekk rek di dox boor ba naan naan naan ma cat cat moom chaque fois mu ma naan cat ci biir làmb très bien cat rek laal doon wax cat rek laal doon wax ma du Diouf yàlla na yàlla musal ñu ci cat Balla Gaye 2 yàlla ko yàlla musal ci cat yàlla na ko yàlla musal cat ndax li tax ma doon wax loolu man man maa ko xam man maa ko xam Madoum bay Balla di génn fii golf ñuy dem Kër Massar oh damay jooy yoon wi yëpp dama ko jooy ba ñuy dugg stade dama ko jooy ma dul sama rakk ji. Balla Gaye baax. yàlla na ko yàlla defal jàmm rek mobiliser suba barki sëriñ ay ay suba te ay VIP lan te lu buyee seet seet seet ñu jënd ko. comme waa Mbour. ah comme waa Mbour jee daa mobiliser. xoolal dimbali waaye ki ñu kaar ak genn wàll fa ñaari kaar ak genn wàll. man nag man nag combat bi. ñaari bu weesoo. ñaari genn wàll la fa indi maanaam dafa mobiliser yow yow. so euh, bi muy kii. bi ñuy présenté bi supporter dama mën nañ ko compter. mais Bombardier di fecc loolu lan nga yëg parce que Bombardier dem bëre ak Balla Gaye di am confiance bay fecc. loolu li loolu loolu d'abord xam nga danga nga ne compter nga support xam nga arène nationale bi supporters yu bëri dañoo ragal a ñëw mais keroog tey jii muy Bombardier muy Balla Gaye joxe nañ leçon de fair play ndax ñoom ñaar bëri nañ ba pare waaw vraiment bari nañ ba pare bëri nañ ba yooyu doon am amatul lii nag mbëri war nañ cee jàngal. te diine dëgg laa ba lañ joxe fair play ndax lii rek war na yee ñu bari mun na yee ñu bari xool Balla Gaye yi jox nañ victoire kële waaye teewul fair play gisoo histoire xeex gisoo dara lii rek war naa yee ñu bari lii war naa yee ñu bari war naa yee ñu bari.

ndax sooy xool sa comba ak Modou Lo dafa mel ne moom ak Balla Gaye ñoo daan bokk contact dama koo gisul ci combat bi lan la qu'est-ce sa se passe. am comba day préparer combat dafa am bis bu mag roi de arènes lay bëreel dafay concentré ci combat am loolu la Balla Gaye ama rakam la la nit bu ta dox seen diggante ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk seen Casamance ñoo bokk seen Guinée ay seen papa yi la woon. voilà ñoo bokk seen Doubalès at Faalaay voilà retournement de situation dafa am te est-ce que xam ne Fadel léegi mën nañoo ne à liiru jaan bu Balla Gaye mën nañ liiru jaan bu Modou day gisanteeg Modou mu ngi nii. saytaane rajim auzu billaahi mina yow ma doon Diouf nag saytaane nga. billaahi wallaahi wa taala. loolu dafa amee àdduna ba nekk sa mbaay. loolu bu amee àdduna gi nag maa ngi koy doog gëm nag musuma wax ni ma doon saytaane nga waaye tey saytaane yaay papaay saytaane yow non yaay papaay man fan laa gis léegi Modou Lo mu ngir Youssou Ndoye bi lan dañoon. est-ce que ah? sax. barke Serigne Saliou Mbacke nekkuma fa woon. bilaa non mu gisee nañ fois. mais jox na la teraanga. Modou Lo ah. may ma tax ma teel waaw ko waaw. kon kay gisee am naa xam ma ma dun bi tabaski bi desee 4 jours may ma tuuti waaw may ma tuuti. tabaski desee quatre jours. lan daje ci mataar suma teel. tabaski waaw lan daje ci mataar suba teel. man xàmmewu ma ko sax buuse moo ne ma Modou Lo ngi nii fekk dafa maskaw ah, takk maskaam comprendre nga mu daal di ñëw nuyu ma ma ma ne ko yow looy def ne yow yaay kan mu dindi masque ma ne ko eh. laa ilaha illallah Modou Lo comprendre nga. léegi exactement dina leer ndax un million yi nga doon naan ma ko jox dama ko jox dina leer dina leer ndeysaan xam nga mu ne wax jooju sax xaw ma fu mu jógee yëkkat ci poosam ngëbal ma. barki sa ñaata bari na moom wax dëgg yàlla mu ngëbal ma. kon kee gis kon kee gisee am na. rek man du ma sakk jëf du ma sakk jëf de ku ma defal lu baax ma wax ko mu yëkkati xaalisam may ma comprendre nga sama rakk la sama rakk déedéet ma déedéet Modou ma xamu fu mu dëkk. aw ma numéro mais li bëri wax fu mu ko tey ma rek ma dul saytaane la dafay jaaxase rek man Modou aw ma numéro téléphone am amul sama numéro téléphone comprendre nga. est-ce que xamal ma la euh, ñaareel ba Modou Lo bi d'accord bi ma yëkkër xaaj déglu ma rek nee naa ko man teewul Ama faral looloo gën a dee bi ma ko waxee Ama laa faral xam nga lu mu ci teg ay ree ni ma fu neex faral sunu mag nga barki Serigne Salim Ba mënuma sunu mag na taal dëkk. amul. ma ñàkk sama ndek sa mbay amul billaahi yéen Modou mos xam nga ni mu bëggee làmb ak ni mu fonkee làmb mos nga yaakaar Modou Lo man danaa waaye yow leen ngeen wax Ama Baldé suma rakk la sama xarit la. lu ma xew déglu ma rek waroon lekk xaalis Modou lu tax ñoom ñëpp mag laa suñ ma joxee damay yamalee dan maa war a jox yamalee suñ joxee damay jël <laughs> waaw tey ji li may wax dama koy intéressé Ama Baldé laa lay wax Ama suma rakk la c'est mon frère waaw waaw tus ku ma jox eh, ba eh, tus laa tus tus la tus la tus maa ko wax tus tus maa ko wax tus dimbali ma islam yi di gaanuwunu victoire victoire dara man sama victoire Gambie bee yem bàyyi tus waxal leneen maa tus tus see tas ba ma ne liiru yow fekk nga diggante Aziz Ndiaye ak Balla Gaye fekk nga diggante Baye Ndiaye Baye Ndiaye ak Balla Gaye mais tey ji bi image bi ma ci gën a frappé mooy bi mu waxee Balla gay wax ju mujj bay génn dafa def signe de victoire di dem léegi amul amul ndam li léegi noo gisee loolu mu wàccaat wàccaat conseil Balla delluwaat delluwaat waaw man dama ko yërëm Aziz barke Serigne Salim yërëm naa sama bopp yërëm naa Balla Gaye waaye yërëm naa Aziz yërëm naa bàyyi Ndiaye ndax Aziz nitu defi la. am jom la gagneur la. ku am jom. ku bëgg lu baax ku bëgg lu baax. bëgg Balla Gaye 2. bëgg Balla Gaye 2. ku ñeme ndam. barke Serigne Salim bëgg ndam. ay coono yu mel Balla Gaye jaral ko lu ne. lu ne. léegi ñi nga xam ne ñu ngi koy critiquer rek. ñu koy critiquer nañ ko bàyyi. Aziz sa moom frère Aziz Guédiawaye la dëkk yàgg na def lu baax Aziz as géejawal rek. barke non fan mooy base bi nag. as day liggéey liggéeyam. su ko neexee moom moom moo tey moom moom Zador as xanaa loolu tey lañ koy waxal xanaa tey koy wax as Aziz day liggéey tey am na ñu ne siiwa tey ah, Aziz nekk seen baay mbaa seen mag am na ñu ne woon siiw Aziz nekk seen baay mbaa seen mag ah am nekk seen baay mbaa seen mag ñuy wax la su ma teeru Balla Gaye di wax loolu de. mais ñeneen ñi doon critiqué te liiru dafa am benn affaire bu mag boo amee mbër mu mel ne Bombardier est-ce que jëloon comme partenaire ku mel ne luur bu mel ne Lac de gënul woon ñi ngay tudd. loolu lépp dëgg la gis nga ñun ñoo bokk géejaway ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp boo loonu xam comprendre nga tey jii loolu lépp nee naa la. jeex na bis mi ngi tey doonoon ko def lii nag tey jii am na ñoo xam ne ku mu neex critiquer daal di wax la de Guiers ak Balla Gaye ñoo bokk ndey ak ñoo bokk seen Casamance. déglu ma waaw waaw loolu daf ñuy yokk ma Balla loolu da koy yokk jom. c'est ça Balla Gaye loolu da koy yokk jom te man maa fi nekk di wax de waaye Balla Gaye waxul de. Balla Gaye xam na li koy xaar. Balla Gaye xam na li koy xaar. mbaa xam na ne li mu jógee li des moo gën a métti. on verra ça. ñu bari dañ ne ba mu ñàkkee Elton ci la am jafe-jafe ci loolu yi. waaw xool ñu dimbali. nañ dimbali. ñeneen nañ fi ñu mel ni Elton a ngi fi. am na fi kay da ngeen koo gisul amul na fi da koo gisul. est-ce que jotul mu delluwaat ci école ba. école ba jigoon ko de. yow dégg euh, da koo jàpp ci gàllaaj. Ah, da koo jàpp may waaye benn affaire laa lay waxal. Euh, benn affaire laa lay waxal. école bi c'est normal école bi. école bi nit dina toll fenn foo xam ni Madoune juuf fu nit ñi xamee fa nga jëm doo àgg. may ma tuuti déglul ñëpp xam école ba àdduna bépp xam école bi Balla Gaye de entraîné ku fa bëgg a ñëw def fa dara da ko fay def. comprendre bala Gaye toll na fenn foo xamee ni combat am na fu muy da mun na làqatu. mais mbëri ko dafa war a làqatu te combat bi noonu la demee woon dañ doon làqatu. mais làqatu Dakar ma de. ndax ba làqatu amut ndax ñu ngi koy sinap lu muy def ñu ngi koy sinap làqatu amu fa. entraînement yi laa wax. comprendre à à trois à trois jours du combat bala Gaye dem ba fu muy watoo sax. ñu koy génne. déedéet ba ñuy génne sax ay watoom ak ay affaires yooyu. Ah. ma ne tey jii tey jii liiru liiru te yow xam nga ne làmb kumpa la yow bëre nga xam nga ne làmb léppam kumpa la est-ce que jotul nag ngeen yokk seen vigilance man. loolu lépp mu mel ne manqué sunu papa Double Less ak Balla Gaye 1 da waaw loolu lépp yal na ne yàlla xaare àjjana. parce que manque organisation bu ñu fa gis bu Double Less doon dund loolu du am. dëgg la ñu yal na ne yàlla xaare àjjana sunu papa Double Less yal na ko yàlla xaare àjjana sunu papa Balla Gaye yal na ko yàlla xaare àjjana. waa loolu lépp dëgg la de yow déggoo li ma la wax déggoo li ma la wax c'est que euh, dafa am ñoo xam ne dañoo ñëwoon pour wane seen bopp. mais loolu waaw may ñoo ñoo xam ne dañoo ñëw pour wane seen bopp te man man boo noon naa dal si kaw ñu bari su ma ko defee problème am ñu coow ñu ne maa yàq te loolu laa doon moytu waaye nee naa la déglu mu lax ba ñu ma ci tëdd vingt ans après kaso. yii ñëw. ba ma ko ma dangay ngay di ba ba ñu ma ci tëdd vingt ans kaso koy jeexal na yow. man question bi dama bëgg ko laaj ko ko tey jii ñu ngi jëm ci ay élection boo doon voteel diggante Ahmed Aïdara ak Alioune Sall koy voteel. ñoom ñëpp jàpp nañ ci combat bi. man Aliou Sall. Ah, waaw ñoom ñëpp ñu jàppale ñëpp ñu jàppale ñëpp ñu jàppale euh, Ahmed Aïdara d'accord doomu géej waaye ma Aliou Sall am naa ci pas droit su ma neexee. Ahmed Aïdara daj ci combat. waaw d'accord. ba yor ay mel ni ci mikaay ni Moussa Gningue man daal xool man lii nga may wax yëpp man euh, kii ñoruma man li ma la wax daal laaj nga ma wax naa la li nga bëggoon dégg li nga bëggoon dégg dégg nga ko loolu nga bëggoon dégg euh, Aziz Ndiaye ko ko wax dara tooñ ko. barki Serigne Fallou Mbacke jàmbaar la vraiment gàcce ngalaama Aziz Ndiaye sonn na ci combat bi dañ na ci coono yu ne yàlla na ko yàlla jàpp li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal fii diwlinam Zador fi bëgg ma àgg faa warga wi yàlla ko yàlla àggale. li mu bëgg moo xam yàlla na ko def bàyyi Ndiaye tamit mention spéciale sonn na Baye Ndiaye sonn na moog Balla bi ñuy xale ah ah ah, ah, ah, ah grand Masara Masara Ndiaye sonn na Kor Ndiak Kor Ndiak vraiment fa mu bàyyi àll yëpp waaw. Badou Diop ñëpp samay fils Badou sama boy la. lii ma daga la ci nga Aziz Abdou Aziz ku baax la. ku daj ay coono ci Balla Gaye la te c'est un gagneur. waaw ba tey daa mel ne galaaj gi bàyyeegul. bu déedéet. galaajam daa fort une semaine après combat lay toog. kan waatal. Bombardier. doxal waay. ah ne woon na la yaay sax combat. ko. xanaa gisoo ma suur lamb ja ne ma mel. ba léegi yow sax nekkoo sax. Ah. nekk naa nekku moo démb. waaye tey nekk naa demb laa nekkul woon demb démb laa nekkul waaye ma xamal la benn affaire da wax ci Aziz. ku baax ku social dama ko da nga maa dagg xam nga tax moo ko c'est un gañaar Abdou Aziz joxe lu ma dépasse fay lu ma courant fay lu ma ndox mais nit la koo xam ne nit defi la te daj na ci Balla gay coono yoo xam ne bi muy récupérer Balla Gaye boobu Balla Gaye wéetoon na kenn fekk ko fa yàlla naka tax may wax loolu lu may béréfit la di wax ne ñi xamul xamul mais Abdou Aziz xam ne Balla xam nekk di wax waaye daal li may wax yàlla na ko yàlla defal mais galaaju Bombardier nu ngalaaj yu bon la yor. yu bon. damaa gis yéen ba ba jéem a njëkk a pare yéen ngeen di sangu rek. galaaj yu bon la yor xale xamoo ma xamal la benn affaire moo tax su nit ñi nee Balla ku ko wax Balla entraîné wul affaire daf may defar ndax xamul tax gis nga la Balla ga su géew bi lan ko sotkat yi jóg. di ko yàqal. di ko yàqal lu nu def ñu yàq sot ko wala fan lañ dëkk géejawaay biir géejawaay lañ dëkk wala wala fan lañ dëkk sotkat yi man ñun loo maa jaaxal na man géejawaay lañ dëkk non bàyyi la affaire seytaane ngay wax waaye man euh, ba tey nu ma wax ni géejawaay lañ dëkk ndax xanaa nit lu dëkk géejawaay di jóg ni xareel géejawaay nga taxaw naa danga koy sot waaye nag nit nit bañ weex na waaye deret ko lal bëñ weex na waaye deret ko lal voilà la koy fat du ko gis comprendre waaye daal matuwaay jël naa ko man l'essentiel la ma war a def taxa def naa ko taxawaay bi. taxawaay du nga bëgg a taxaw léegi. waaw yëkkat naa sama téléphone woo ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk ndey baay ñoo bokk géejawaay guy gi am na combat combat mi jëm yàlla ko yàlla may ndam. la de Guiers amagul combat yàlla ko yàlla may combat mu am ci ndam képp ku dëkk géejawaay am combat yàlla la yàlla may ndam bala Gaye dese na ko ay combat yàlla na ko yàlla may ndam combat bi jëm ko ah, te yàlla musal ko ci cat at la ma chaque jour loolu laa yàlla ko yàlla ci cat yàlla ko yàlla musal ci cat yàlla ko yàlla musal cat yàlla na ko yàlla musal cat lii yëpp rafet na tey jii xam nga lii yëpp mbiru yàlla la yàlla dogal na ne bés dina mës a ñëw Bombardier am ñaari jël ci Balla Gaye am ñaari jël ci Balla Gaye ce que jotul tey su ma la waxoon benn message bu rafet te baax te fair play booy wax Bombardier lan la. lu ma koy wax yàlla ko ndam li jig yàlla ko ndam li jig. tam bàyyi tas yaakaar. waaw tam bàyyi tas yaakaar kese mooy wax ji. na bàyyi tas yaakaar. ndax dafa tas sama yaakaar. man dégg bu rafet ne danga ngaa jëm arena bu Youssou Ndour ba. Ibrahima Madoune Diouf du caaxaan. barki Serigne Salim ak bu fatt taj laa teg pour waaj a dem Youssou Ndour euh, welma welmaa bikit billaay ñoo ma jox costume bu rafet pour après ma war a feete sama victoire xam nu xamu ko xamu ko li yàq xamu ko waroo tas tamit kër Bombardier yaa ngi taxaw di wax ci diggante aawam ak ñaareelam bàyyi li ngay def dafa jeex. xanaa kon ne nga ne jabar bo nga ne jabaru Bombardier. baax la jabaru Bombardier Balla Gaye la faral. Balla Gaye la faral kay. xanaa kon buri Balla buri Bombardier la faral. buri faralul Bombardier buri nu mu faralee Bombardier buri ji Bamba Balla Gaye mooy neex a bëgg. Balla Gaye koo gis bëgg Balla Gaye paa bëgg nañ ko maire yi bëgg. Bombardier dafa neex a bëgg daal dafa am doole. moom du ba xanaa xam nga yaay Bombardier Balla Gaye la faral. da kaa bañ a wax rek xam nga doom moo foor. bu doomam bëriwul. waaw da ne bu doomam bëriwul. moom képp ku Balla di bëreel. Balla lay faral. loolu xam nga dafa neex loolu dafa waaw ndax doom dafa jege. doomam la sa normal. ku képp ku Balla Gaye bëreel moom la faral kay. ñëpp ko bëgg amul noonu. yaayu Bombardier maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla may gudd fan at wér gi yaram nga dem ba fekk lépp ndax wax ji nga wax wax dëgg yàlla dafa sedd sama xol waaw kontaan naa ci yow waaye nag. yaa Sadio tam ni la waxoon yaay Balla Gaye barke Serigne Saliou mbakke kenn mus ko wax wax ju ñu kenn mus koo dégg ma wax wax bu ñaaw maire bu gëm yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal ba mu fekkee njëriñu ñëpp mekk njëriñu ay sëtam sëtam maire Sadio yàlla na yàlla yàggal mi ngi fi sëñ Cissé bu sëñ Babacar gërëm naa ko sant naa ko ci combat bi waaw wax dëgg yàlla ci lañu coon sëñ Cissé maa ngi koy gërëm bu baax sëñ Samba Ndour Samba Ndour déglu ma sonn na ci combat xaaseen bu teel daa yéex a ñëw Samba Ndour Samba Ndour maa ngi koy gërëm tamit bu baax a baax a baax ak Serif Tambédou sërif Tambédou ku baax ndeysaan son na ci ko moom Balla Gaye ñoo bokk son na ci combat bi gasama hmm? ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di sant wax dëgg yàlla ñu ma ñaanal ñëpp ci combat bi ku ma bëgg liiru jaan bëgg Balla Gaye 2 maa ngi lay gërëm bu baax. di la jox jotuñu ko waaw déglu ma rek ñëpp gërëm naa sant naa gis naa taxawaay bi di gërëm euh, kii nu mu tuddati soxna Waalo bu APR ndeysaan dafa defar ay tise du bari jox ma ko. billaahi dafa defar ay tiset yu bari jox ma maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant waa Adja Gass ca Angleterre sama yaay la at e, Jëli Jàmme Jëli Jàmme moo Njaay Jëli Jàmme mi ngi nekk si dën moo gën jàpp nañ ko oh, non moo gën non gisuma ko de wax dëgg yàlla maa ngi koy nuy gisuma ko wuyu ma déggal ma wax ñii may wax ni du jàpp ci combat bi sama nit lan te ñaan Omar Sow waxoon na ko de xaw ma nag waxoon na ko de taalibi Serigne Touba waxoon na ko de wax dëgg yàlla waxoon na ma ko tey waxoon na ma ko. waxoon ñëw na wala ñëw ah wóoru ma wóorugu ma lijjanteegu ma ko ah loolu naa ci ko lijjanti ndax am na lu ma waxoon lu ma waxoon dina ko def ci combat bi man loolu naa ko lijjanti ndax wóorugu ma wax dëgg yàlla taalibe sëriñ Touba la am na lu ma waxoon ta xam na ni Balla Gaye taalibe sëriñ Touba am na lu ma waxoon ci ko def Omar Sow ah, waaw vraiment waaw non moom wax dëgg taalibe sëriñ Touba la lu mu wax def ko ba waaw Omar Sow gisam la wax Adja euh, ki Jali Jàmme suy dën vraiment Madeleine fale Atlanta comprendre nga ah, at kii nu mu tudd euh, euh, Ndeye Mara Baro ah euh, moo Ndiaye directeur série Madeleine Mafal kii Mansour Kassé ci Amérique. ñooy samay nit lan at père baabu non non du question jàpp combat bi samay nit lan dama leen nuyu du voilà samay nit lan dama bëgg te xam nga xam eh, bii ñu toog tamit war nga wax ak ñoom de ndax ñi ngi tas banlieue bi waxal ak ñoom de ñi ngi taal banlieue bi de waaw ñaa fekkee moom Mansour Diop Mansour Diop set na am na hygiène am na sécurité am na sécurité da bu la neex nga ñibbi kenn du la laal kenn du am na hygiène te am na livraison. am na livraison cag cag yaa ngi fi. fataay fataay la nga fi réer. non non c'est pas vrai waxoo dëgg. fi lekk mi waxoo dëgg. baat bu ngeen jëloon ci Modou Lo keroog benn ko daanee. baat boobu mooy neex a faral dimaas dafa am benn baat bu ngeen jëloon ci Modou Lo. waaw lañ tuddee woon mbër mi neex a faral dimanche neex a faral dimanche. bi ngeen ko daanee. ñu ne bala gay mooy neex a faral dimanche waa baat boobu tuxuwul ci ci Bombardier tuxuwul neexul a faral Bombardier neexul faral a faral Balla Gaye neex a faral dimanche Bombardier neexul a faral yow nan la neex faral day fe day day daan fecc Balla Gaye neex a faral dimanche mais day fecc attaqué ci biir combat Bombardier di fecc waaye yow dëpp loolu daa bëggoon ñu faral ko dimanche waaye neexul a faral neexul a faral dimanche amul supporter non mu mobiliser amul supporter buy man nan bàyyi wax yooyu waaye man pare naa ci moom sama rakk jaay yàlla ko yàlla fal cat Bombardier victoire am bii dinoog sama victoire gàmm bi yàlla ko jig est-ce que jotu nga woote réunion dajale bëru géej ñu gën a waxtaan seen biir. bëru géej ñun ñëpp jàmm nañ seen. dajaloo waxtaan. non loolu am lool loolu dina am non ndëpp. may la defet defet waa defet bu amee. soo du loolu de. liiru liiru ah, liiru liiru liiru xam nga carrière carrière u Balla Gaye presque dañ koo fekkee. gis mooy mooy bi battre ay record yu bari léegi nag bu demee ba waaw waaw bu demee nag ba ba lii am jàngat dafa war a am jàngat. lan na ko loolu seen yoon nekku ci yéen rek seen seen wàllu journaliste ñun ñoo dëkk Géejawaay ñun ñoo nekk ak moom tippee seen affaire yéen seen yoon nekku ci ndax yéen fu ne ngeen di dem. àndu leen ak kenn léeg-léeg sax ngeen wax ci suuf wax ci ko ah, waaw waaw waaw àndu kenn kon nag. bu leen seen yoon yéen ñëpp a yem. mais Lamine euh, euh, ah, mooy entraîneur bi si mooy entraîneur bi école ba. mais ah, benn lépp benn la. benn la non non. Aziz Aziz gàcce ngalaama Aziz Ndiaye. Aziz daal gàcce ngalaama yàlla ko la yàlla lafal cat la yàlla ko yàlla lafal cat di gërëm gërëm ñoom ñëpp déglu ma may ma damay gërëm déglu ma la xam nga sànq dama lay xam nga bu leen mu nekk fii di ma jëw pour mbalak ma su fekkee da ngeen ñëw pour mbalak ngeen na jóg ñibbi non dama lay bu leen ma tàngaloo non non bàyyi seen affaire reetaan yi ngeen def waay bu leen ma tàngaloo waay yéen a may reetaan soo ba léegi waay bàyyi seen affaire yi ngeen may def waay yow bi nga takkee ndax xale ba léegi amatoo jàmm xam fu la wóor bi mu takkee bi mu takkee xale ba léegi bi mu takkee jami may ma tuuti bi mu takkee jami géey ba léegi dafa rakkaaju soxnaam la da ko takk farte yàlla tax dafa rakkaaju mais ni tent bi dañ ba neen tent boo ko defati xoolal dimbali ma ngaa tent maa tey tent fu ba maa ngi daa tent ma ne man nekkuma di ab Lamyn Lutte TV benn néeg mu ne laay mu ne ah, dama la respecté duma Modou Lo warul di àbb Lamine Lutte TV ne waaw ma ne benn néegu Lamine di ko àbb. Ah, di àbb caabi Lamine. waaw di àbb caabi lan la bëgg a wax foofu. Madoun. Madoun. non Madoun. Ah. bu fi yee fitna. Ah, non dama lay wax bu fi yee fitna. Madoun man kilifalaa laa. Madoun man kilifa laa. Madoun man kilifa bu fi yee fitna ndax lii ngay def affaire yi yee fitna la Madoun non non non affaire yee fitna nga mi nit ku takk jabaram ci nga ne ko. non non nga rakkaaju ndax fu na gis nga ñam mi rek. mani mani nee naa ko bi Lamine bi Lamine boori fédération yor caabeem di ko jox ba léegi. mooy mu ngi ñami ñami maa ngi gërëm ñëpp képp ku jàppoon ci combat Balla Gaye maa lay gërëm di gërëm sunu monsieur le maire Aliou Sall vraiment tey euh, Madoune euh, Jamaïcain daf tuddee drapeau avant yàgg na woon barki sëñ Bamba le huit. Ah, billaahi wallaahi taalaahi barki si boo waxoon na ko bu yàgg ndeysaan waxoon na bu yàgg dafa ma tuddee drapeau samedi bii ñëw le huit. kan si Baye Mandione. mooy mooy mooy roi des arènes. waaw Baye Mandione mooy maa ngi koy gërëm di sant maa ngi koy gërëm di ko sant Baye Mandione di ko féliciter ci combat bi mu jógee tamit Baye Mandione ku baax la borom xol bu rafet la wax dëgg yàlla di gërëm baabooy taxawaay bi di ko masaw waa vraiment ku baax la gis naa ni mu taxawoo sama rakk ji yàlla na ko yàlla jàppale di gërëm képp ko jàppale bala gay te defoo te ngisal waaw ngisal ku ku. bari woon na ku jàppale ku jàppale ku jàppale. képp ku jàppale. ngisal yi képp ku jàppale Balla Gaye te jàppale ko yàlla na la yàlla defal jàmm. ku ko may la ku ko jàppale te jàppale ko te dafa ko yëf ngisal yàlla na ko yàlla defal jàmm ku ko jàppale nag te di ko jàpp di jàpp ndax ngisal yàlla boo am jàmm. déggoo ma de dégg nga ma képp ku jàppale Balla Gaye te jàppale woo ko àdduna defal ngisal. ah yàlla nga am jàmm ku ko jàppale na ku ñëw di wane sa bopp ndax gisal wala caméra la jël la yàlla boo am jàmm. Balla Gaye yàlla na ko yàlla defal jàmm Balla Gaye yàlla na ko yàlla musal cat Aziz Ndiaye ñu ngi koy gërëm mention spéciale sama waa ji seen maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm képp ku jàppale Balla Gaye ak képp ku fan sa Balla gay ndeyeen ñëpp ñu nekk maa nga lay gërëm di la sant vraiment taxawaay bi rafet na te ñun suñu supporter ay VIP lan duñu yàq duñu yàq làmb bee lu mu seet seet ñu jënd ko. jënd ay boisson di maye barki sëñ Ba supporteur Balla Gaye ñoo nekk ay noble billaahi lu daanuñu loolu victoire. waaw am na ku koy nuyu mu ngi lay nuyu ki dëkk bi. du Cappaacoli sama yoon nekku Cappaacoli sama yoon nekku ci ay Cappaacoli. xaw ma sama yoon nekku Cappaacoli. de bëri fort xaw ma yow saytaane nga sa yoon nekku ci ay saytaan rek nga da ngay wane Pikine nga dëkk moo tax. saytaane nga da ngay wane Pikine nga dëkk moo tax. xaw ma yaa gën a saytaane ñëpp. yaa gën a ñëpp. ay saytaane neen sa tent moo jugul Balla. xaw ma sama tent sa yoon nekk Balla tent ma tent sama rakk la balaa tent ma tent da ngeen ñëw pour mbalak ma wala lan la da ngeen di ñëw pour mbalak ma da ngeen ñëw pour mbalak ma. ah waaw ñëpp laa xam. caabi ji. est-ce ce que xam nga ne liiru jaan mooy l'homme de waaw est-ce que xam nga ne liiru Diane moom lañ décerné l'homme de l'année ndax liiru par rapport ak interview bi mu demoon xale bu jigéen bi revue de presse bi moom ci ci ci l'homme de l'année la bokk. kan. li nga defoon émission boobu la nekk wàññi. moo ko def. mais lu mu nekk l'homme de l'année. l'homme de l'année boobu du bu baax l'homme de l'année bu baax. Ah, boobu da lam daane bu baax. ndax mooy bës yi gën a loolu du lam daane bu baax. ah non loolu du lam daane bu baax. man daal gërëm naa diaspora bi yëpp maa ngi leen gërëm di leen sant képp ku fan si Balla Gaye da nekk ñu jóge woon France ñëw ndax combat bi ñu jóge woon Amérique ñëw ndax combat bi ñu jóge woon Italie fu nit jógee ndax combat Balla Gaye gërëm na leen sant ne lii du dara. liiru liiru defet de liiru defet de lii day defar jàngat la. bu sama question bu mujj est-ce que bu doon jàngat tey jii combat Bombardier est-ce que di ngeen delluwaat France. lu sa yoon nekku ci lu ñuy def ay saytaan kippel sa affaire sunu biir la faru leen fenn faru leen fenn yéen dimbal leen ñu su lu ñuy def du leen ko wax. waaw maa ngi gërëm sama waa ji maître Ndiak ba sama avocat ba ndeysaan lekkatul naanatul yërëm naa ko trop waaye nag garaawul lii du dara lii ñëw mooy dàq bor la rek mi ngi ñëw lii dafa ne yee ci lu baree baree baree baree baree bare def yéen ngi rendre service mbër bii am defet waaw est-ce que yéen a ngi koy rendre service bu baax li li may dégg lii ñëw ci man lépp dina ko dégg ndax lu ne maa ngi koy dégg man lu ne maa ngi koy dégg sonn naa lool waaye moom ma gën son ndax nitu dëfi la borom jom la barki sëriñ Fallou Mbacke Balla Gaye borom jom la. ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la. ak am jom waa taalibe sëñ Bassirou Baara yàlla na ko yàlla defal jàmm te musal ko ci cat ak làmmiñ ku ko yéenal jàmm am jàmm ku ko yéenawul jàmm doo am jàmm. looy wax Bombardier lu ma koy wax ndam li yàlla na ko jig. guddi guddi mbuur. noppi de mbuur la xam ne sama yoon nekku ci guddi. di nuyu président Mamour Kandji ci mbuur. bu la bàyyi ah. bëgg bul tas bu. waaw ne ma nuyu président euh, sama rakk ji Youssou Ndoye international. moom moo def lii. mayo bi moo ma ko joxoon. sama xarit la xatu Bombardier la de. ak dàll yi ma sol bu ma dun barki sëñ Bamba Youssou Ndoye ma ko jox. xatu Bombardier wóor na yàlla sama na yàlla sama rakk ji Youssou Ndoye moo ma jox dàll yi. sama rakk la sama xarit la sama rakk la. di gërëm petit gorom petit maa ngi koy gërëm bu baax ak Badou xaritam Badou. loo gisee liggéey impro. ah loo gisee liggéey impro. baax na waaye saytaana ngeen li nga liggéey rafet na trop waaye ay saytaane ngeen Modou Diouf saytaane saytaane nga. buur mooy papaay nijaayu saytaan Modou mooy papaay saytaane. Lamine. ah sama booy la. kii. caabi ji Babacar Babacar. saytaane pël. nga ne pël saytaane la. non non. ko. pël. saytaane la bu dul saytaane pël mooy saytaane. pël la pël du bàyyi leen naa jël pël ñaareel de. sama jigéen la bàyyi seen i ngeen mooy saytaane bi pël sama jigéen la. Babacar yii ma kus kon rong mooy nijaayu saytaane yi. mooy nijaayu saytaane Fadel xarit la saytaane nga amul xarit doo sama xarit saytaane nga ndax fii nga nekk lu nekk nga ma koy wax. Medoune saytaane la. buur. waaye yow mooy bàyyi saytaane yi. sama booy la. <laughs>